Baye Gaynde champ de course Colobane dina indi fii kenn bëggul woon dëkk Pikine ñu naan oto bu yarub ne Pikine la jëm ca golo ya ñoom ñu dëkk fii waa première génération bi suñuy maam deuxième génération papa troisième génération bi ñun ñu defar Pikine ba tey Pikine ñun ñëpp dañu am fierté dëkk Pikine ci concept pikinité loolu nag bu amee armeel yi bi ñu ko ibee 4 hectares la ëppoon na ko kër yi nekk fii yëpp dañoo fekk si armeel yi armeel yi dem na ba fële na ñu naan euh, nu mu tuddee kii bâche lan bâche xel comme bâche armeel yi demoon na ba foofu waaye boobu population Pikine bëriwul moo tax sóoraale wu ñu woon ëllëg looloo tax li ñuy muré 4 hectares kese la ñuy dem di ci suul di ci suul les personnalités les dignes fils de Pikine les dignes filles de Pikine ils ont fait 68 ans du soir de Pikine ñu ngi tëdd fii ci domaine sport ay Falaye Baldé ay zo ay euh, nu mu tuddati Baba Touré ci domaine ay politique ay Zo ont Zo Mbaye le symbole de notre pikinité ay ay pas biragay, Gueye ils ont filles. ngi imam am Omar si mi ngi fi mbake mbake yi ngi fi si si ñu ngi wa tuwa won ñu ngi fi ñepp ngi fi ni donc fii Alaaji Madiama job mi ngi fi kon la ñuy wax ne pikin armée yi dafa am ben lien affectif bo xam momo ñu lié ak armée yi ndax te tay ji tay bu ñu sañon tay suñu wajur yi nga xam ne ñoo jur tëdd fi ku fi sañon bo fi jógee sa papa lañ lay denc sa wetu yaay lañ lay denc sa wetu mag lañ lay denc momo tax momo tax momo tax wa pikin mënu ñoo concevoir ñu leen di ibil armeer faneen dafay tas njaboot yi ndax dañuy suul ñii fii suul ñeneen ñi fële loolu duñ ko nangu ñun ñëpp fii la ñuy suul loolu moom moo tax ñuy wax ne sama suuf ma yokk sama armeer bu ñu ko waxee mooy fii 12 hectares point 7 moom moo fi nekk ñu bëri xamuñu lan moo nekk ci biir barab bi ndaxte ci tali bi la ñu romb wala ci tali bii nii gis ñax yi xamuñu lan moo nekk ci biir li nekk ci biir 12 hectares point 7 la mooy 127 000 mètres carrés loolu nag moom moo tax ñoom ñëpp. ñu xiif mel na ay bukki yi gis yàpp ndaxte douze hectares point sept boo ko morcelé ay terrain cent cinquante mètres carrés dana la jox huit cent soixante quatre parcelles looloo tax ñoom ñuy tëb di dal waaye waaye nañu noppalu xam ne fii duñ ko def ay parcelles fii duñ ko def ay kër ay doomu aadama ci dëkkee dañ ko def kër ga mujjug ñëpp ñëpp bokk ko ku faatu ñu denc la fii ci anam yu mucc ay loolu moom moo tax ñuy wax ne buñ naan leen armeel yi douze hectares yi dafa wàññeeku xam ngeen douze hectares moo ci dañ un hectare point un moo ci dañ muy onze mille mètres carrés onze yooyu deux mille huit cent dix-huit mooy hangar bee ngeen di gis ki ko moom dëkkul Pikine doxandeem la ma nga jóg ba kër Samba kan waa Pikine ndax dañuy ñàkk fayda amatuñ suñ suul ay néew benn doxandeem jóge ba fële ñëw jël espace bii duñu am suuf loolu duñu ko nangu duñu ko nangu hangar bi bi nga koy jox daf na woon da koy jël pour mbay ñu aal ko ko à titre révocable et précaire mooy saa su ne mën nañ koo nangu mu def ay lijjanteem dem urbanisme fexe ba wutal ko baay te baay boobu légalul xam nga lu tax légalul parce que fi mu war a jaar jaaru fa. bu yàggul dégg ngeen président Macky Sall di wax maire yi ni ñuy jaxatee suuf si. maire Guédiawaye na ko loolu wax ko waa administration bi administration bi ak maire yi ñoom ñooy complot fu suuf am ñu seetloo ko mais fii fii say boo ñu ñëpp seen gémmiñ fii duñ ko lekk fii duñ ko lekk moo tax moo tax ñuy wax ne hangar bii moo jël 2818 mètres carrés yi kër yi ñuy wax ay 40 parcelles la mi ngi jël 8182 mètres carrés muy tekki lan muy tekki ne un hectare point yooyu muy un mi onze mille mooy suñu suuf bi ñu nangu te construction yooyu benn légal ci ki ko wax mooy préfet ki ko wax moom mooy maire commune bi ñu nangu suñu suuf yokk suñu ay armeel armeel yi nag liñ ci bëgg moom mooy douze hectares point sept yëpp ñu jël ko def ko ay armeel armeel yu mucc ayib yu yaatu ñu lotti si ko ba bu ñu amee ñuy rob dañuy ñëw koor bi yaram day mën a dugg ba ci biir ñu rob ba pare def fi benn parking boo xam dafa ibbeeku fii ba embouteillage yi am fii door fi amati ñu def fi morgue bu moderne Pikine mérité na loolu Pikine mérité na loolu moom moo tax moom moo tax ñu ne combat bi combat bi pour ñu yokk armée bu fekkante ne mënut a boole waa Pikine kon waa Pikine alku nañ dara mënatu leen boole moo tax ñu leen di woo chers compatriotes locaux les dignes fils les dignes fii de Pikine ñu ànd def benn say kon ne di yuuxu président Macky Sall sunu suuf. ñu yokk suñu armeel suñu suuf ñu yokk suñu armeel suñu suuf ñu yokk suñu armeel ñu leen di wax ne ñu leen di wax ne buñ jógee ci lii danañ évaluer li ñu jot a def lépp buñ jógee ci lii ñi ci war a toogal yëpp nañ toog ak ñoom prochaine activité dañuy bay armeel yi bay armeel yi le 13 décembre dina daje fii ñun yëpp bay armeel yi kon na waat profitoo ci occasion bi di yuuxu sama suuf sama suuf sama suuf sama suuf ñuy gërëm les forces de l'ordre